bisimila ñi doon laaj Jomaay ak Sonko ana fan la ñu bëgg a jëme réew mi Le Soleil ne di ngeen am seen tontu fukki fan ak ñeent weeru octobre yéenekaay bi ne rendez-vous bi bés booba la ko jàpp ngir fësal référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal muy projet bi Jomaay ak Sonko nar a doxal diggante 2025 ak 2050 maanaam ci seen mandat bi yéenekaay bi ne ña ko xamle ca conseil des ministres démb ca boobaleb conseil des ministres Le Soleil ne yéegle a defal professeur Amadou Makhtar Mbow Afrique ak àddina yépp wéy di ko jariñoo njukkal loola it mu Sénégal daf ko amel professeur Amadou Mokhtar Mbow Sénégal it yéeni cabinet léegi tey mu am conseil supérieur de l'éducation et de la formation CNRA moom am na njiit lu bees gannaaw bi mandaaw Babacar Diagne jeexee yéeni cabinet président Bassirou Diomaye Faye tabb na démb Mamadou Omar Ndiaye Bougane Gueye Dany ak Yérim Seck moom les échos ne lu rëy la ñuy yéene cabinet benn garde à vue Cheikh Yérim Seck moom retour de parquet la am démb ñoom ñaar ñooñu ñëpp diffusion de fausse nouvelle la ñu gàll ci seeni ndodd journal bi ne loola nag way politique yeeg société civile bi yépp koy ñaawlu l'info moom kay tiir groupé la gaa yi def ñépp a ngi songee jomaay ak Sonko fu ne di ñaawlu jàpp yi bari fan yi lool jëm ci ay délit d'opinion délit d'opinion booba sax enquête ci la xëy ne piège la ci nguur gu bees gi journal bi li ñu doon jooytu ci nguur gi fi weesu kap jàpp Cheikh Yérim Seck ak Bougane Gueye Dany sax dafa dul jural nguur gi dara c'est contre-productif point actu mel ni ku koy dëggal naan jàpp Bougane ak Cheikh Yérim Seck kay tàmbali naa indi coow nguur gu bees gi ndax kurpañ yaa ngay taw ci seen kaw Seydi Gassama ca boobaleb journal naan ministre de la justice dafa war a sant parquet mu arrêté topp ñi nga xam ne seen sañ-sañ dong la doxal di wax seen xalaat takku wàllu Sénégal naan jumaa yeeg a ci nguurug Macky Sall te mu tàmbalee dekk ci nguurug Diomaye ak Sonko nguur googa terreur judiciaire ak putsch électoral la ko atel lonkal ne moom lay doxal jamono ji l'observateur naan waaye loola ñuy doxal mën naa këpp seen kaw les risques d'un retour de la yéenekaay bi wax ci xëtam gu njëkk joxoñ convocation ak législative yi ñu dëkmal ay woy politique sax di jàngat njeexital yi convocation yu bari yooyu mën a am ci élection législative yi ñeel Pastef wax ci mbiri leen di laaj ñoom ñaar ñépp ma nga jëm ci xayma yi Ousmane Sonko joxe ko a sax waxtu woowa la nu de cybersécurité yéene kaa bi ne taskatu xibaar bi dafa xamal yooyele enquêteur ne amul benn source habilité rawatina ak FMI joxe dara du ca dëgg Cheikh Yérim Seck dafa xamle ne Sénégal am na fanweeri milliards ak juróom yu mu jëlee ci marché UEMOA ci weeru septembre décembre bi ñu génn te nee na ku weesu déficitu 10 pour cent weesu ratio 80 pour cent ci wàllu det bi ak PIB bi mënoo yëkkati benn koppar maanaam doo def levée de fonds Cheikh Yérim Seck ne loola mu wax yépp nag jubluwu ci woon yàq benn yoon deru Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany moom la mu wax mooy Ousmane Sonko ci boppam mooy yàq deru Sénégal moom itam weddi xayma yooyu Ousmane Sonko joxe yi ne moo waral ñu déglu ko démb journal bi ne benn tànk ma nga kaso beneen tànk baa nga ca biti gannaaw ba nu ko dégloo ba noppi nag moom Bougane yéene cabinet diffamation ko teg toppeewunu ko ko lanu koy de fausse nouvelle waaye procès verbal ba moom Bougane daf koo lànk signé enquêteurs yi itam waxuñu ko ban fausse nouvelle la diffusé maanaam ana lan lu dul dëgg la wax yéene kaa bi ne liy dëgg kay mooy Bougane dafa weddi chiffre Ousmane Sonko yooye indi chiffre yi dëgg teg mu ne kon bu amee ku yàq deru Sénégal Sonko moom la waaye du moom Bougane ba ko takk der ndax loola mu wax moom Bougane bu amee ñu war a baalu Sénégalais yi mooy fonctionnaire yi nga xam yoor yoor bi moom dafa taxaw seetlu ci liberté d'expression ne dafa war a nekk ci diggante droit ak responsabilité sañ-sañu wax ñépp ko am waaye nag kenn amul sañ-sañu wax lu la neex ci kaw ku la neex yéenekaay booba fësal ci xëtam gu njëkk Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck Kader Dia ak Amath Suzanne Camara nit ñoom ñépp la leen di toppee mooy wax naka sudul noonu Ahmed Khalifa Niass waxtu woowa ca Walf Quotidien di wax ci mbiram ñeen fukki otoy fàttali ne El Tactico téeméeri match ak ñett la jogante juróom benn fukk ak juróom ñaari ndam la am ñaar fukki nul ak ñett ak treize défaite tax sus a ne ko gàcce ngaalaama Aliou Cissé merci deseloo Sénégal dara yéene kaa bi ne bilan bi mu def kenn musu ko fee def ndam li mu indi it kenn musu ko fee indi muy Coupe d'Afrique yóbbu nu final ñaari participation ci mondial yéene kaa bi ne boole kook engagement bi nga xam ne mësu cee dellu ginnaaw journal bi ne kon Aliou Cissé deselul Sénégal dara l'observateur ne moo taxit ni nu ko na bu Sénégal moomee yéene kaay bay jooytu juróom-ñeenti at yi mu def ci bopp équipe nationale journal baa nga cay dellu di ko faram fàccee yéegee ñu it ngërëm yi Abdou Diallo Demba Ba Lamine Camara Diomansy ci gaynde yi ñu dëkkmal ñu xam nanu cay génne ñu des ci Les Échos mi ñuy xibaar ne gannaaw conseil des ministres bu démb bi Mamadou Omar Ndiaye tabb nanu ko directeur CNRA Mamadou Lamine Diante moo dem ca Haut Conseil du dialogue social Momar Diong la ñu dig daje ëllëg incha allah